waa centre bi nag li nga xam ne moom la commencé mooy dafa doonoon itte boo xamante dafa ittiloon nit ñi ñun ñu commencé woon ko depuis ci Dangu Sud nekk fa ak ay xale yu ndaw ab benn kër di leen fa defal ay activité yoo xam ne jigéen moo ko saxal yàlla def nag ba ñu fa nekkee monsieur le maire euh, Pape Samba Mbeng ànd ak ay partenaires finlandais ñuy wër ay groupement koñ bu ne ñu nekk fa di wër ay groupement yàlla def nag bi ñuy wëree groupement ba yegg si Dangu sidd ñu fekk fa groupement Bokk Jom groupement Bokk Jom groupement la boo xam ne ñu ngi ko créé woon en 1998 yàlla def nag bu mu ñëwee mu gis liggéeyin bi ak ni ñuy uufe woon xale yi mu gis ne lii wax dëgg yàlla liggéeyu jigéen ña mu présenté ñu partenaires yi partenaires yi daal di ñu jox ne ñu Euh, groupement bi ni mu demee ñu wax ko ni mu tëddee yëpp mu ne waa lii laa doon wër groupement boo xam ne dañoo takku bokk ndey bokk baay di liggéey kon man defe naa ne dinaa mën a liggéey ci yéen bi loolu weesoo ñu waxtaan ak moom mu ne ñu yéen lan ngeen gën a bëgg ñu ne ko ñun daal fii ñu toog sax dañu koo àbb kon li nga xam ne moom moo ñu moom lañu gën a bëgg mooy kër parce que kër gi bu ñu ko amee lépp lu suñu activité rek dañ ko fa mën a def ñu waxtaan ak ñoom ba d'accord ci loolu ñu ne ñu nag kon nag lii comme noté nañ ko léegi da ngeen ñuy bàyyeek monsieur le comme ça léegi lu ñu ci tënk rek dinañ leen rappeler beneen yoon yàlla loolu di dox nag di dox di dox ba yàlla def nag ñu wax ñu ne benn jour ñu xëy woo ñu ne ñu nañ ñëw wuy si mairie bi ñuy demet ñu yóbbaale suñu coordinateur mu Ndiaye Cissé indagraphe salut de passage ñu di ko nuyu tey jii moom moomu nag il faut ñu béral ka parce que tamit doon na góoru développement ñun ci li ñu commencé yëpp ci moom la Abdou Mawa Ndiaye ak Top Gueye ñu leen di saluer ñoom tamit de passage parce que suñu liggéey yëpp dafa firnde woon ci développement waaye ñoom tam dañ ko fësaloon dëggal ko doon ñu ci gunge bi yàlla defee loolu ñu def partenariat ñun mairie ak femme Bourma Bokk Job ak Indagraf moom mu Ndiaye Cissé 3D ñu lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ñu ne ñu nag léegi Euh, yéen nan ngeen li nar a liggéey ci centre bi ñu ne centre kat boo ko ubbee war nga see association associé bi yeneen groupement yi si lañu duggee ay dangu sud dem dangu misira jóge fa dem euh, gendal ak dangu kaw fépp foo xam ne yaakaar nañ ne ay groupement nga fa rek ñu dem waxtaan ak ñoom ñu ñëw ñu bokk nag toog waxtaan ba xam centre bi nan lañ ko war a taxawale pour bu ëllëgee mu mën a jariñ jigéen ñi si boobu nag lañu defaree maquette bi maquette bi bi ñu koy defar ñun ñëpp jigéen ñi ñoo ci d'accord looloo tax tey ji boo xoolee centre bi ñun suñu xalaat la la génne mais du xalaatu sax ña ko da doon liggéey ñun ñoo xalaat tënk def ci ay kayit ne leen lii lañu bëgg ñu defaral ñu ko muy centre bi ñu toog tey di Maison Rouge Maison Rouge nag moom mi ngi judd si la si la si lañ ko tabaxee 2002 en l'an 2000 la ñu fi ñëw pour inaugurer ko l'an 2000 lañ ko inaugurer mais biñ ko inaugurer ba pare groupement yooyu nag ñoo fi nekkoon groupement bu nekk ñu jël fa kenn sélectionneur ñu boole nag ñëw toog mu njaay si si à 3D daal di ñuy daal di ñuy fexe suñu premier partenaire la nag ndax fexe ñu am formation bi ñu amee formation it mu fexe jigéen ñu ñëpp ñu nekk fi ñu lëkkaloo doon benn ba formation bi mën a jàll ñu amoon ci ay jigéen ñoo xam ne ñoo nekkoon fii nag ci centre bi créé loolu ñooñu nag ñoo doon liggéey di liggéey di liggéey ba tey jii waaye nag mënuñoo wax nag te tuddaalewuñu Baye Jacques Diop ndax keroog ba ñu soxlaa terrain bi ci moom lañu dem mu yombalal ñu ko lool ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ndax keroog yombalal na nu ko dagg terrain jox ñu ndax terrain bu toll ni ku ko dagg jox ko nit ki eh, naw nga ay jigéen ñu pare ci loolu te eh, bépp maire nag bu fi nekk bépp maire bu ma sa toog fii rek liggéey nga ñun ñuy ñaanalaale monsieur Ndiawar Touré ndax it am na lu mu def ci centre bi di ñaanal ma Yaa ndax moom it am na lu mu def ci centre bi nee naa la maire bu fi ñëw rek am nga loo def ci centre bi. si la ñu taxawalee fii nag benn comité de gestion waaye yàlla def na nag Aminata Diané moo doon présidente groupement Bokk Jom bi ñu ñëwee taxawal fii nag euh, comité de gestion boobu ñoom Adja Sakho ñoom Ndeye Ndiaye Gendal mooy li ma doon wax rek groupement bu nekk am na kuñ ca ak ñoom soxna aw puy ñoom ñëpp ñu ngi ci woon ñu booloo. doo tënk euh, teg fii benn euh, comité de gestion comité de gestion bi di doxal ba yàlla def nag ñooñu retraité ñu teg fi nag GIE njariñ GIE njariñ moomu nag moo fi continuer nag nekk ci biir centre bi di fi liggéey céréales locales di produire ay ay ay kii daanañ produire presque deux tonnes fii ci centre bi chaque mois di ko livrer militaires yi moo waral nag groupe boo ko déggee ñu naan centre bi filière bu nekk nag dafay taxawoon ñooñu nag ba ñu demee ba nga xamante ni la dem nañu ba doon ay mag xam ne nag seen doole mayatu leen ñu liggéey ñoom itamit dañoo daal di puus nag daal di nekkoon nag il faut ñu ak ñeneen nag ñoo xam ne ñooy jël suñu relève taxaw fii nag yor centre bi comme centre bi dañ ne woon dafay doo euh, pour jigéen ñi la rek kon bu ñuy passé rek ñeneen ñi dañuy dugg léegi ñooña nag bi ñu bi ñu poussé ñu indi fi nag beneen ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi tudda réseau mais avant boobu ñoom gagné nañ fi grand prix de chef de l'État am nañ fi prix ci euh, si prix hygiène propreté am nañ ko fi ñoom am nañu Fra ñoom daal lépp loo xamante ne doon nañ ko wut même reconnaissance juridique rek jigéen ñooñu remplir noonu condition yooyu moo tax bi ñuy dem nag am ñu ñu fi bàyyi ñooñu tamit dañ leen a teg ci yoon wu rafet ba ñooñu tam ñu ngi ci yoon wi réseau des femme muy réseau des femmes de Rufisque Nord créé par maam Omar Mané ñoom tam ñu ñëw fekk suñu fii si Maison Rouge biñ fi ñëwee it aussi fekk suñu fi ñoom amaguñu woon maison bu ñu dal waaye maire bi da koo jëlee na jël teg leen ñun ñi ci suñuy loxo nee ñu comme ay jigéen ngeen te ñoom réseau bu ma créé foofu la léegi ñoom nañu leen fekk si boole ànd ak yéen ndax man jigéen ñëpp laa fi nekkal xooluma ku ànd ak kii xooluma ku ànd ak kële centre bi daal moom ma ñar fii la jigéen ñi nekkoon doon liggéey kon lu ma am dinaa ko centraliser si centre bi ngeen bokk si moom tam si la ñëwee jàppale ñu ci ay formation jàpp équipe centre bi ba tey jii loolu mooy dox ba yàlla def na ñu am fi benn terrain bu ñu mooy fii si ginnaaw loolu maa ngi siy lancé waale sax ay partenaire di wax ne tàllal naa ñëpp sama loxo képp ku ñu si man a jàppale ba terrain bi taxaw ba ñu tabax ko loolu doon nañ ci gën a kii ndax léegi dañoo gën a yaatu xale yi gën nañu bari foofu tamit bëggoon naa képp ku gis partenaire rek ñu jàppale si pour loolu tab terrain boobu ñu tabax ko ñu ñu demati ba réseau boobu tamit bi mu juddoo moom tamit aussi 2018 la 2018 2020 nag moom mu am ay këyitam moom tam am autonome am autonome am léegi nag ñooñu tey boo ko xoolee ñoo tonk nekk ni di liggéey ñoom tam bi ñuy liggéey ñu xam ne jamono dafa changé kon war nañu uti ay ndaw ndaw yooyu tey ñoom la ñu jël formé leen waaye nag yàlla def na ne suñuy partenaires yu baax yi 3 3 3 FPT ñoom euh, ak ak ak FAO ñoom ñëpp suñuy partenaire lañu ak Maguette Fall ak développement communautaire ñoom ñëpp ñu ngi doon yëngu ci ñun ndax nit tamit doole lay jën ndox parce que partenaire yooyu tamit ñu baax na si suñu ginnaaw may waxaat tamit ne am na partenaire boo xam ne nag moom direction de l'emploi ñooñu nag presque boo ko xoolee sax ñoo ñu gën a ñaax nag pour que ñu mën a liggéeyee xale yi boobu nag def nañ ci 73 xale yuñ ñu indil jigéen ñi former leen jàppale leen xale yooyu tey tey boo ko xoolee tey ñun buñ fi doon tey di dem bay retraite dootuñu am jaaxle dootuñu am dara am na ñeneen ñu topp si suñu ginnaaw fekke jàngal nañ leen xam-xam ñoom tam bu ëllëgee ñu mën a développé ba mën a développé ñeneen tey ñooñu nag ñu ngi fii ci centre bi xale yooyu di nga leen gis léegi bu sa kanamee filière yi nag bari na ndax kenn ku ci nekk da ngaa opté foo bëgg a dem fii ñi ngi fii def transformation fruits et légumes am na ko fa nekk kooku boo fa demee dina wax ak yow lépp loo xam ne kii ne parce que man maay coordinatrice activité waaye filière bu am na kenn ku fa nekk ñu jagleel la ko xale yooyu nag tey jii ñii ngi ci fruiterie micro jardinage ñii ngi ci céréale locale bi ñii aussi tamit ñi ngi ci ci transformation fruits et légumes bi euh, ak euh, pâtisserie bi aussi am nañ fi euh, série pâtisserie tamit buñ fi buñ fiy def yooyu yëpp am na fi kenn ku ci nekk boo demee ci ñoom couture bi it aussi yàlla def na tamit am na ñu ko jiite sérigraphie am na fi teinture am na fi micro jardinage lépp loo xam ne daal nit dina ko liggéey pour développer sa gox rek ñun ñu ngi ci taxaw pour ànd defar ko ànd bokk nda ak baay di ko liggéey ci condition yu rafet condition yu leer dañuy def nag chaque année dañuy def assemblée général chaque année dañuy def évaluation xool fi ñu fi ñu nekkoon xoolaat tamit fi ñu wa fi ñu fi ñu fi ñu toll ak fi ñu bëgg a jëm loolu moom yàlla defal nañu ko ñu nekk fi nag ak ay jigéen ñi brave nekk fi tamit ak ay ñoo xamante ni le jigéen ñu bëgg a liggéey lañu jigéen ñu taxaw waaye nag nit buy liggéey tamit ñu ngi ñaan état di wax ne partenaires yi nañu ñëw gën ñu jàppale nax ñun jóg nañu pour développer dëkk bi développer dëkk du fekk du ay doom yoo xam ne ñu ngi juddoo fii sur Rufisque Nord ñu ne nañ leen sol xam-xam buñ leen solee xam-xam ñoom ñu jël keneen ba mën a jàppale leen loolu même bu doon a liggéey état tey ñun engagé wu nañu ñun waa kër gu xonk pour taxaw bay si suñu waar ba jigéen bépp xale bu yeewoo Rufisque Nord yàlla tamit aussi ubbi la développement ba nga mën a jàppale ñeneen ci GIE jariñ nag laa bokkoon mais relève de am nekk na fi nekk nañ fi pendant plus de vingt quelques années léegi nag ay ay mag lañu ci lañu ñu formé nag xale yi nga xam ne ñoo nekk ci sama gannaaw di xale yu dynamique di xale yi ju am jom ju am Pastef ju bëgg li ñuy def ba gis nga leen ñuy liggéey liggéey bu sell nag liggéey bu mucc ayib lépp loo xam ne moom la ñuy lekk ñoom moom la ñuy jaay leen ci sant di leen ñaanal yàlla ñu yokk ba yëkk ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam en matière de transformation produit locaux nag ñun dañ ciy insister toujours parce que dëkk bu bu bu développé rek ci jariñoo la ngay la ngay ci dundee la nga xam ne moom ngay jariñoo sa réew di ko bay ci loolu nga développé pays bu jëm kanam rek ci agriculture ak consommer local ci nga ci nga développé ñuy ñuy lancer appel di ñaan nit ñi nañuy consommer local nañuy consommer local moo gën ñuy jëggaani li ñuy jëggaani li li nga xam ne mooy suñu meññee réew moo ko gën fuuf te moo gën ci su suñu sante ñuy lancer nu ñu lancer appel nag monsieur le président de la république ak madame la première dame Marème fay Sall di ko lancer appel xam nañ na ku yaatu la xam nañ na ku yërëm jigéen la waaw pour mu jàpp mu mu gën ñu jàppale mu ngi ñuy jàppale mais mu gën ñu jàppale parce que jàppale du doy parce que bu dul ñun dafa am ñu nekk ci suñu gannaaw relève day am ñii nga xam ne formel nañ leen ñu ñëw tey ñooñu dañu ñaan yàlla bu ñu fi jógee ñu formé waat ñeneen ñu ñëw nañ ñu jàppale ñu ngi ñaan yàlla di ñaan di lancer appel président de la république ak madame la première daam ci yér yërmandeem ak ci jàppale jigéenam bi mu nekkee mu jàppale ñu ci centre bi ci matériel jàppale ñu ci ci ci ci ci dooleem daal ci lu mu man ñu ngi koy séentu ci loolu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla na ko lépp yomb ba Sénégal naat ba kenn ku ne gis ci sa bopp léegi kii bi ñu joxoon waa ministère tam xale yi dañ genn wàll gi jënd nañ ko matériel li ci des xale yi bu ñuy ñëw nit kii fu mu yendu buy dem ñu bari bokkuñu place bu ñu dëkkee dañ leen doon jox ay transport mais jënd nañ matériel mais matériel bu doyul buñ ñu mënee gën a jàppale ci matériel dina baax waaw loolu daal lañuy ñuy appel di ñaan yàlla suñu moroomi jigéen yi ñu def ñu ñun bu ñu ko defee rek Sénégal jëm kanam ndax jigéen mooy yaay jigéen mooy jigéen jigéen mooy doom te yaay day bëgg toujours doomam am lu baax ñun ci loolu lañ taxaw parce que dafa am xale yoo xam ne dëggale seen njàng soriwul mais njàng mu ñàkk sori munul téye nga am jomi liggéey looloo tax ñun ñu recruter recruter xale yi indi leen defal leen formation formation bu nekk nag mu ngi ci biir mu ngi ci biir centre bi man nag ci filière bi ma ne ci lay intervenir muy céréale locale maanaam dañuy transformer meññeefu réew bi waaw pour nit ñi di consommer locale de grâce na nit ñi consommer local suñ ko doon consommer duñu sonn li ñuy jëggaani mu doon ay centaine de million xaj na ci dëkk bi nañu nañu former xale yi taxawu leen jàppale leen ba yàlla def ñu ñu améliorer ba jëkk bi jëm kanam ñun loolu lañ bëgg ñun waa Rufisque noor di kër jigéen ñi di kër gu xonq ñu ñu ngi gërëm waa ministère di gërëm président de la république di gërëm euh, la première dame. waaw produit bi accessible na ndax ñu ngi fii ci Rufisque Nord Dangu Misra ci kër gu xonq ku ñëw di nga fi fekk produit bi ñun yàgg nañ ci liggéey comme ni ma ko waxee di di di di di livrer militaires yi képp ku soxla produit bi boo ñëwee ci kër gu xonq incha allah di ko fi fekk. bëgg nañ am centrale d'achat foo xam ne produit bi fa lay daje bëgg nañ ko am boobu léegi ñu ngi koy jooy amuñu ko ku ñu ci mën a jàppale nga jàppale ñu dina ñuy euh, boutique yi nag dinañ ñëw ñoom di jënd di dem mais central d'achat daal ku ñu ci jàppale rek yàlla fay la waaw ñu ngi ñaan tam état bi comme ni mu doon def ci Covid bi di jënd ay ceeb di joxe muy commande ci cere ji di commande sanqal araw caagri di ko joxe parce que loolu tam dana tax jigéen ñi mën a développer nañuy jël ci lii jigéen ñiy liggéey produit fini bi ñuy liggéey bu ñuy joxe ay don ñu di ci jo joxe don te nañ ñu jàppale ci cuiseurs yu mag yi ak séchoir soxla nañ ko ndax suñu liggéey yëpp su nawet ñëwee dañuy am problème parce que ci solaire bi la ñuy la la ñuy moom la ñuy utiliser léegi nag suñ ñu jàppalee ci ci cuiseur jàppale ñu ci séchoir dina am solo torop te ñu ngiy dugg nawet jigéen ñëpp ko soxla nag parce que jigéen ñi transformé kenn ku wax rek waxal nga sa morom kenn ku wax rek waxal nga sa morom ñu ngi lancé un cri du ci président de la république ak gouvernement nañu jàppale jigéen ñi ci matériel nañ leen jàppale ci don yi ñuy joxe ñu di ko commande ci ñoom muy muy muy produits locaux yi nga xam ne moom la jigéen ñi di liggéey muy cere muy caagri muy sànqal muy araw ñu di ko commandé bu ñuy joxe ay don ñu di ko joxe loolu daal lañuy ñaan di ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla jàppale te yàlla na yàlla def Sénégal jàmm. ci maison rouge bi du lii rek lañ fiy liggéey équipe lañu ñee ngi ci formation frise de légumes ñee ngi ci céréales ñee ngi ci euh, micro jardinage kenn ku nekk nag am nga loo jiite yàlla dogal na nag bi ma féetee nekk euh, frise de légumes maak samay équipe xale yi macha allah lii ñu bëgg ni tey ji dañ doon jéem di góor góorgóorlu di góor góorgóorlu daanaka ñun bi ñuy commencé yoruñu dara waaye dañu dem ak suñu force ak suñu ngëm-ngëm yàlla def sutura nag ministre de l'emploi ñu di ko ñaanal yàlla lii muy def ca kaw ca kanam yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ba mu gën a ba mu gën ñoo dëgëral dëgëral xale yi ndax ñun xale yi dañ leen di gunge rek ndax suñu xam-xam bii ñun femme de développement yàgg nañ cee dox mais bi ñu demee nag ba jëmmi jamono nag léegi ñu nekk maison rouge yi di ñu jàppale léegi di ñaan yàlla ministre de l'emploi gàdduñu nag ñu waxtaan ak ñun nag muy xale yi ñu ñu jox six personnes lañu pour ma defal leen ci ñoom xam-xam frise de légume frise de légume boo ko déggee nag lépp ngi ci biir ndax am na ñuy matériel ndaam ndax ñoom ñooñu ñooñu jàppale ci matériel yi ñooñu jàppale ci jox xale yi fonction boo xamante ne dañ ciy liggéey xale yi ñu ngi leen di jox paas di leen jàppale pour ñu gën a mën a sawar ci li ñuy liggéey ndax xale lañu xamuñu dara xale nag boo ko dee tette lu toll ni ministre de l'emploi jàppale la pour nga di leen jàppale pour ñu mën ci gis seen bopp loolu sant yàlla rek la lii ñuy liggéey ni il faut ñu wax leen lan mooy njariñ li ndax njariñ li boo ko gëstuwul dugguloo ci doo ko xam ndax siro yii macha allah macha allah ñi ko xam te ñu naan patron ko mën a jënd déedéet dañoo xamul waaye lu baax ñépp ko bëgg parce que li muy def ci yaram benn produit du ko def ci yaram parce que produit yi fii lañ ko bayee defar nañu buy bisaab am na daxaar am na jinjeer am na papaaya am na ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen man fi mu nekk nii macha allah am naa ci ay client te samay client bu ñu ma déggee may wax nii gis ma ci télé dinañu xam ne am na njariñ ndax dañ may commande loolu ñuy def noonu nag ba ñu gis ñun suñu bopp ñun mag ñi ci la gunge xale yi ba ministre de l'emploi jàppale ñu fekk ñu fii ñu nekk ñu jàppale ñu ci xale yi tette leen teg leen ci aw yoon ci xëyu gone yi frise de légume bi frise de légume bi ñun dañuy dañoo réer rekk waaye bu ñu réerulee defe naa ne nawet képp ku bëgg légume di nga ko am parce que ni ñu koy consommer nii su lëjum ñàkkee ba ñàkk boo ko defee say bokaal denc ko soo ko sottee di nga ko jariñoo te loolu yëpp nag xam naa ñàkk xam la ak ñàkk xam niñ koy defee la waaye képp koo xam ne sa doom tey jii ci commune noor bi bokk nga fii ci formation bi soo demee ci say woy jur su nawet dee bëgg a si ba nga defar ko sa yaay dina kontaan parce que dina ne waa doom lii noo ko defaree nga ne ko lii kat ca centre ba laa ko jëlee kon xam-xam mënul paase foofu kaani dara gënu koo cher dina tom dollu ci kilo huit mille francs waaye kaani man mi wax ak yow nawet duma ko jënd nawet duma ko jënd carotte duma ko jënd lu jëm ci haricot duma ko jënd parce que lu tax dama koy consommer di ko denc bu ñu amee bu ñu gënee yokk koom-koom bi nag ba ñu am entreprise boo xam ne tey ji dañ koy kasati ci ay kees bu kerogee dinañu xam ne jigéen ñi am nañu métier te seen métier mii dañ koo teg ci yoon parce que nawet bu tawee suba taw ngoon defe naa ne doo xalaat looy togg wala doo xalaat loo xamante ne tey jii di nga ko def ci cin ministre de nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla ngeen yokk lu ñu gën a yokk muy gën a baax ndax nag fii mu nekk nii ay matériel moom daanaka jàppale nañ ñu ci tubaarkàlla te kuy liggéey nag ci commencement bi manqué woon ay matériel nga ñëw mottali ko ay matériel ba manqué tuñu dara macha allah amul lenn lu fi manqué xale yi dañu ci gën a gis seen bopp ñoom it ñu gën a dugal seen loxo pour ñu gën a mën a jàppale xale yi ñu dund bay am entreprise boo xamante ne dinañ ne ministre de l'emploi moo nu jàppale moo jàppale commune nord ba tey ji xale yi gis ci seen bopp mag ñi gis ci seen bopp sirop bi moom macha allah macha allah ku ko utiliser di nga xam lan mooy sirop bi mais boo ko utiliser wul doo ko mën a xam loolu daal laa leen doon ñaax di leen wax ne xale yi ma yore macha allah ñoom ñëpp kenn ku ci ne gis nga ci sa bopp kenn ku ci ne xam nga li ngay liggéey lan la ba tey jii mën nga koo defar mën ngaa xam fi ngay jaar ba gën a gis sa bopp ci lii ngay def ñun fi mu nekk nii daanaka marché kenn ku ne am nga fa client ren dematuñ ci àll bi ndax daanañu dem àll ba booba ñun gën nañoo nekk ndaw ñun ñi monitrice waaye fii mu toll nii foo toog rek bagage mën na la faa fekk marché dañ fa am ay client dañuy jënd ay saaku buy teg saaku bisaab saaku daqaar yépp ñu teg papaye bi ci ñaay bi lañ koy commandé ñu indil ñu suñ ñu indilee nombre bi liggéey bi li ci gën a neex yow mi koy liggéey nombre bi nga jënd war nga xam nga nombre biteel yi mu war a def loolu moo ci ëpp solo boo ko peesee di nga xam lii nga peese nom temps de butéel nga ci war a am booy defaree daxaar ji peese ko di nga xam temps de butéel nga ci war a am ndax liggéey foofu yi daf ciy am solo ndax booy liggéey nii rek te jaaroo fi nga war a jaar moo mooy ngay jàng di tari rek di dem te doo ko trouver ëllëg mais lii ñuy def nii dañu koo xam ba xam fi ñuy teg suñu tànk tey bu ma doon defar dinaa xam ñaata laay defar dinaa xam nombre yi may defar te macha allah macha allah waa biti ñi nga xamante ne ñooy jaay biteel yi tubaar kàll tubaar kàll parce que lu jiin njaago ñooy jaax parce que biteel yooyu suñ ko defar woon tey ji ñun dinañu am problème ndax li tax dinañu am problème ndaam dinañu defar ay biteel mais dina wuute parce que biteel yi du fépp lay jaay fenn kenn rek moo ko fi jaay muy fi mu waa te bu ñu ko liggéeyee nii diir diir liggéey bu jaar yoon bu mucc ayib mën naa durer un an sirop bi du yàqu loolu moom assuré nañ ko euh, frise de légume bi mën na diire un an du yàqu ci kaw quantité bi ñu ko liggéeyee ak temps bi ñu koy parce que temps la laaj ay minute la laaj ay heure la laaj loolu nag boo ko xamulee maîtriser woo ko doo dem danga naan rek naa xóoyal jàmb déedéet la nga bëgg am doo ko am fa nga bëgg mu jariñ ci biir doo ko am ndax biir li ciy dem dafa war a sel dafa war a baax bokk ci xale yi nga xam ne nii waa ministère de l'emploi ñoom lañ tànn daanaka ñun ñu bokkuñu fi ñu dëkk nag dañoo tànn ci ay koñ ñu nekk ay ndaw doon jàng ñu pare liggéeyuñ suñu maire yu baax yi wooñu ci centre bi ñuy liggéeya ndox ñoom ci centre bi nag am na ay filières yu bari waaye ñun ñu ngi bokk ci fruits et légumes bi biñ ñëwee nag fekk fi suñu maire yi ñu accueillir ñu bu baax ñu mel ni ñu xamante lu yàgg te biñ xamante yàggul noonu jàngal nañu aussi éducation balaa ñuy dugg ci lépp éducation la ñu njëkk a jàngal nan ngay accueillir client nan ngay communiquer lépp ci biir biñ jugee ci loolu aussi ñu jàngal ñu nan la ñuy pratiquer ay jus ay confit walla ay euh, marché douane lépp te daanaka liñ fi jàng mën nañ ne xamuñu ko woon lu bëri ndax daanaka ñu ngi togg ñu ngi yàq waaye am na lu bëri loo xam ne comprendre luñ ko woon te biñ ñëwee ci centre bi si la ñu ko xamal di gërëm aussi waa ministère de l'emploi parce que satisfaire nañu ba nga xam ne nii amuñu sax seen fay ndax bu du woon te loolu ñu ngi woon ci kër gi di togg di yàq mais en dehors togg beex yàq bi ñu ngi liggéey ñu ngi pratiquer te gis nañ ci njëriñ bu baax ndax man bi ma jógee fii ba ma demee sama kër dama doon exercer wu di defar ay jus di jaay te gis naa si gis naa si avancement boo xam ne nii xaw ma ko woon lu bëri maa ngi koy defaral sama bopp mën nañ ne am nañ benn euh, expérience boo xam ne nii tey jii mën naa dajale samay copine ma teg leen kër ga jàngal leen na la ñuy defaree sirop parce que njariñ boobu aussi am nañ ko fi am naa ay copine yoo xam ne ñu si bëri xamuñ na la ñuy defee sirop dañ may gis rek ma xëy gàddu sama ju di jaay mën naa leen oo tey jii ñu toog ñu dajale jënd ay produits de ce fait ñu jaay damay remercier encore waa ministère de l'emploi di leen xamal ne lu ñu def si ndaw lu ne rek doyul parce que ëllëg ñun ñooy màgg te buñ màggee ëllëg ñaan nañ yàlla liñ jaar nii am ñeneen ñu fa jaar daanaka ñun ñoo am sens pour ñu ñëw fii ci centre bi di exercer wu waaye am na ay jeunes yu bari yu des ci biti ñoo xam ne amuñu sens bi te intégré guñ ci centre bi ñu yokk ci jeunes yi ñuy jël parce que ay jigéen lañ te daanak centre bi bu ñu nee centre rouge presque jigéen ñi rek a fi nekk mais am na ay jeunes yu bari yu nekk ci yoo xam ne bëgg nañu intégré ci biir centre bi jàng li ñuy jàng waaw. gàncax. dafa soxla kuy teew ci moom toujours moo tax kenn nit mënu ko liggéey am nañu nag na ñu ay xale waaye lii wóor bu wóor xam-xam bi ci microjardinage nekk na xam-xam boo xam ne bi ah, bu ñu sañoon ñu dimbali ñu mu siiw parce que bio lañ fi liggéey bio mooy loo xam ne lii amul benn produit chimique te ku nekk xam na ne produit chimique dafa dangereux ci doomu aadama kon mbay lépp lu mu loo mën a fexe ba mu manqué chimie rek dafay dem am importance moo tax boo gisee fu kay koy béyee ci taabal lañ koy def taabal yi kenn du si suuf def suuf lañ lañ siy def pour lu ñuy wax substrat lañ si def substrat nag dafa am ñetti composant yoo xam ne moo tax mu tudd substrat composant yooyu moo di ah, coxu ceeb lañ la ñuy def soxu xooliti gerte ak ay ay xeer yu sew ñett yooyu moom mooy composé euh, substrat léegi nag mu am liquide spécial boo xam ne bi moom lañ koy arrosé pour mu mën a màgg dans les normes produit boobu mu ngi tudd macro ak micro produit bi produit bi nga xamee ne macro la tudd dafa xonq bu si de kanamee tuuti buñ duggee dinaa leen ko wan bu weex bi tudd micro boo déggee macro nag mooy lu rëy rëy rëy rëy ba amul yemukaay soo déggee micro mooy lu tuutee tuuti tuuti ba amul matukaay yemuwaay ñaar yooyu nag suñ leen boolee nag moo waral micro jardinage di def effet bi muy def si doomu aadama soo ko lekkee tey bu fekk boo lay rawoon salaatu micro jardinage bat ak ak ak ak euh, betterave microjardinage tomate microjardinage tey soo ko lekk reeroon ba suur soo tëddee di nga yëg ne lekk nga loo xam ne lii nuróowu lax la nga daan lekk ndax bu bu yëboo mu ci nekk kon loolu mooy li nga xamee ni moo composé microjardinage muy loo xam ne lii lu am njëriñ la loo xam ne lii la ñu waroon fexe mu yaatu bu yaatoo dana baax si santé ndax dëgg la dañuy bay mais li ñuy bay yëpp day am produit chimique tey day boo duggee si table bi si tool bi bisaab a nga fa ku ne xam na ne bi bi saab amul waaye tey jii boo ñëwee si microjardinage di nga fi fekk bisaab soo bëggee bëggaj di nga bëggaj di nga fi fekk bisaab bu xonq boo xam ne bi doom yi soo ko wittoon tey euh, euh, seetlul bisaab bu xonq boo boo bay si microjardinage amul benn produit chimique nga jël ko defar ko ba mu baax ba weer ba mu wow nga daal di ko war a transformé def ko sirop kon sirop boobu ku ne xam ne ne war la mën a nuroo ak beneen sirop boo xam ne bi bisaab ba dañ ko dañ cee def engrais béy ko donc micro microjardinage njëriñam mooy dafay joxe wér ci doomu aadama léegi nag ñun fi ñu koy liggéeyee nii amuñu espace bu doy ndax tey jii xool ngeen tool bi nu mu toll borom kër bu xëy bàyyi këram ñëw yendu fii doo fi mën a jëlee dara loo xam ne lii mun na yariñ sa kër kon ñuy nuyu de passage rek ah ministère de l'emploi mi nga xamee ne naa yàlla a ah, moom moo leen yebal pour xam li fi ne ndax yàgg na noo bëgg ku ñu découvrir parce que li fi nekk fii si biir centre Kër Gu Xonq am na solo solo boo xam ne bii ah kenn du découvrir ñu kon nag bu ñu ministre bi bëggee découvrir dañ koy sant yàlla di ko ñaanal bu baax a baax a baax di ñaan ah yéene gi yàlla na ko yàlla yeggal am nañu itam problème ndax problème bi mooy espace bi te itam ñu xamal leen ne aussi ni ñuy liggéeyee microterrinage bi ni ñu ko mane ni ñu ko jàngee ba man ko noonu lañ mën a agriculture noonu la ñu jàngee agriculture soo demee si biir tool bi da nga gis am na yoo xam ne yi ñu ngi ko béy si suuf béy si suuf san ne s'appelle pas microterrinage béy si suuf microjardinage dañ koy def ci kaw ci ay table lañ koy def du am poussière chaque semaine da ngay da ngay da ngay da ngay raxas substrat bi mu set du am poussière du am microbe moo tax mënul yow ndax gàncax goo xam ne gi dañ ko béy ci suuf c'est pas la même chose kon nag loolu mooy li nga xamee ne mooy njëriñ bi. microjardinage de man de loolu de moo tax ma ñëw maison rouge wante am na yeneen yeneen yoo xam ne mos ñu ngi fiy dox mais ku ko bëgg a xam rek foo nga ñëw ba fii gis ko waaw ndax fii dafa xaw a làqu waaw ñun nag man ci musicoro jardinage laay dunde ci laay liggéey lu ne ñu ngi koy liggéey fii lu ne ñu ngi koy bay fii wax dëgg yàlla bio nag ku mën a am bio santal yàlla bu baax ci li ngay def ak li nga yor ndax bio fi mu nekk moom mooy dundal nit ki moom mooy wéral nit ki mais yi des yépp ay produit chimiques la te loolu baaxul moo ñu indil pénalité lépp lu ñu am pénalité ci suñu yaram rek moo ko indi kon nag nañ ko daw ca ba muy teel comme que xam nañ ci dara yàlla def na nag léegi nag comme que ñun ñii xëy na am nañ as tuut luñ ci xam ñu bëgg rek léegi nag képp ku ci nekk rek te nga am jot bi ak man-man bi nga ñëw jéem koo découvrir ba man cee bokk su ko defee yëf yi dina yaatu te dinañ am li ñu bëgg suñu santé dina normal waaw loolu laa am lu ma leen di wax ku ko ku ci dégg lii nag nga bëgg koo xam nanga def tout ba ñëw découvrir ko ci biir Maison Rouge wax dëgg yàlla ñu ngi sàkku ndimbal ci liñ ci nekkee nag bañuñ ci dara nag bañuñ ci dara ndax ñun loolu lañuy ñuy fortaatu pour def ci li ñuy li ñuy béy sànniwuñu pot sànniwuñu siyo sànniwuñu bool sànniwuñu dara xott bu ñu gis rek man dama koy far léeg-léeg sax damay romb ay xale ñi ma gàddu samay bagage ñi ne man leen dafuma de damaa bëgg lii dama ciy liggéey moo tax ma di ko gàddu waaw. wax ji tamit yàlla na ko yàlla jaarale si yoon waa ñun nag dañ fi nekkal jeunes yi pour seen réinsertion ndax dañu gis ne xale jigéen yi jàngatul dafa bëri. te perdition bi bari na mendicité bi bari na ñu bëgg a bokk ci ñuy xeex loolu moo tax ñu am benn vole ci centre bi ñu vole couture pour jàppale jeunes yi former leen pour bu ñu génnee fi mën a am ay métier bañ a taxawaalu fenn bañ a yàqu fenn loolu moo waral suñu nekkaay fii nag ñu jël suñuy maigre moyen yi ñu jot a am di si jàppale jeunes yi te rekk tax waaw loolu moo war a suñu toogaay fii jeunes yaa ngi nii am na ñoo xam ne dañuy xëy am na ñoo xam ne dañuy gont ñi ñooy xëy parce que togg ñu ay añ ñi togg añ ñooy gont waaw ñetti formatrice lañ fi nag euh, kenn ki mooy gont ci couture euh, ki mooy formatrice yu teinturière ñett lañ fi ñu bëgg daal xale yi daal man li leen di jàngal ba bu ñu fi jógee duñu taxawaalu fenn man seen métier ci barke yonent bi loolu daal moo ñu fi taxa toog waaw di ñaan yàlla rek li ñu sént ci ñoom yàlla nañ ko am ay jàmbaar lañ nag ndax yàgguñu fi trois mois lañ fi am mais ñoo jot a réaliser robb yi ngay gis te niveau zéro lañ fi ñëwee waa mais góor góorlu nañu daal ba ñu jot a am lii ci ñoom ah, xeebuñu ko ndax dulu lu ndaw ndax ku mënul dara ci trois mois mu commencé ñaw kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ba mu nekk ñu ngi seen deuxième robe nii te avant loolu jàng nañu point yi ñu leen doon jàngal yépp ba mokkal ko fi mu nekk boo leen joxee robb nii sans machine sax mën nañ ko ñaw ba mu yegg te boo ko gisee da ngay defee ne machine la. kon ay jàmbaar lañu ñoom tam couture nag lu baax la ndax gannaaw bu lekk weesoo sol moo ñëw te ku soluwul doo mën a dem fenn nag kon solo lu am solo la te dañu toll sax si jamonoy solo nag ak lu jamono metti metti metti du ñu teree solo nag ñoo ngi lekk ñoo ngi naan waaye ñoo ngi solo bu baax a baax sañse mooy tax ñu naw nit nit bu solowul mënuñu ko tuddee sax nit kon sañse si ñun la bokk waaw kon ñaw daal day métier bu noble sax ndax euh, boo mënee sa métier rek métier si boppam dafa baax ci nit soo amulee métier soo jàngulee amuloo métier doo dara taxawaalu rek ngay nekkee kon métier dafa baax si nit ba tax na xale mu tolloo si jàng métier rek war na ci def kem kattanam ba jàng métier maîtriser ko mën ko ba bu ëllëgee du tax tàllal fenn loxo moo tax daal ñuy rey suñu bopp ci xale yi pour daal xale yépp am métier waaw initiative bi mu ngi jóge ci ministère de l'emploi mu jàppale ñu bu baax nag dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax a baax machine yi moom moo ko jënd tissu yi ñuy ñawee itam ñoom ñoo ko jënd ñoom daal jàppale nañu bu baax a baax a baax a baax ministère de l'emploi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax daal ñoo ñu yokk courage ndax ñun fii ay maigre moyen lañ doon liggéeyee mais ñoom ñoo ñëw indil ñu ay matériel ba ñu mën seen liggéey di jox xale yi ay per ay yu ñu mën a paase di ñibbi di jox xale yi itam aussi repas ba ñu mën fi yendu di liggéey kon ministère de baa ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. Ah, ñun na ñu ngi fii ci maison rouge euh, filière yi bari nañ fii. man nag maa yor wàllu teinture bi teinture sérigraphie fixation sachet. ak drap yi euh, ñun man maa ko yor fii di ko liggéey fii ci Maison Rouge euh, ci ndimbalu euh, ministère de l'emploi des jeunes ndax boo gisee loolu yëpp am dafa am xale yoo xam ne tey jeunes yi ñu ngi jàng ñi seen jàng yàqu ñi ñu ngi ci kër yi ñi dangu ci mindaan mais lépp métier moo ko gën dañ fi ñëw nag ñu leen di jàngal man le jeudi ak samedi laa fi jàngale damay def teinture damay def sérigraphie dañuy def fixation sachet ndax lépp loo xam ne tey da ngay dem ba Mali di ko fa jëndi nga jàngal ko sa doomu réew ñu bénéficier fu am ci dara dimbale seeni waajur dimbale seeni bopp ndax ëllëg ndax métier mooy dara bureau bi dangay ngay dem retraite mais métier de métier doo dem retraite léegi ñuy ramasser xale yooyu indi leen maison riche di leen jàngal seen liggéey teinture bi fixation sachet yi mooy que ñi nga xam ne dañuy am mariage bu ñëwee fii dañ leen koy jaay. Euh, dañ leen koy jàngal en même temps xale yi bu ñu liggéey dañuy jaay recette boobu ci ñoom lay demaat euh, te euh, bi tam ay sachet la ay tissu ay t-shirt ay drap drap de lit des nappes de table des serviettes boobu tam ci ñoom lay demaat encore en même la même chose ñun tey chaque jour dañu war di liggéey mais boo gisee ñuy def du jeudi ak samedi c'est parce que ni ñuy liggéeyee céréale bi ak teinture bi ñuy def mënul bokk moo tax ñuy ñaan emploi des jeunes ñu yaatal ñu suñu terrain bi mais fii dañuy defar euh, Facebook dañ ko fiy defar dañuy defar VIP dañuy defar ay léger lépp loo xam ne nit mën na ko jëli ji marché wala Mali man bu ñëwee fii ci centre rouge dina ko fi am à travers emploi des jeunes yi nga xam ne mu ngi suqali euh, euh, jeunesse bi kon jaraw lakk ministère de l'emploi mais lu mën a yokk rek ñu mën a jël parce que nag première phase bi la mais deuxième phase bi soxla nañu lu gën a yaatu lii soxla nañu ay matériel am nañ fi benn terrain boo xam ne tam dañu ko joxoon à travers maire yi monsieur le maire Omar Mané boobu te bëgg nañ ñu tabaxal ñu ko parce que mu gën a yaatu ndax fii dafa ndaw mais maison bi dafa ndaw sa dafa tuuti sa fi ñu toll nii am na xale yoo xam ne dañuy ñëw pour inscrire mais du ñu am fu leen teg du ñu am leen dugal sa fi ñu dañ ne des jeunes suqali njaboot gi ci loo xam ne ëllëg nañ ko jëriñoo jëriñ seeni waa ji jëriñ seen bopp kon tey terrain bi bu ñu ko defaloon ñu jël yokkal ñu ay matériel gën ñu jàppale parce que ñu nekk ñu fi lu dul jeunesse bi di ñaan ci yàlla nag yal na yàlla sotti lépp ñu gën ñu gestu gën ñu dooleel ñu mën a dem fu sori ak jeunesse parce que ñun taxawuñ fi ci lenn lu dul pour jeunesse bi loo xam ne dañuy liggéey pour ëllëg ñu am seen métier bopp ndax ñëpp munuñu tekki ci école yi ñëpp mënuñu tekki ci leneen kenn ku ci nekk sa wërsëg fu mu nekk ci filière bu nga nekk rek ñu ñaan yàlla nga am ci dara ba yor ci sa njaboot wasalaam. formation couture bi ñëw di def si fii amal nañu njariñ trop parce que auparavant kër ga lañ daan toog rek bien vrai que pare nañ yenn jàng yi mais ak diplôme bi da ngay toog sa kër doo def dara mais vie que ba ñu ministère de l'emploi mayee euh, formation pour ñu def ko gis nañ si njariñ bu baax parce même pas trois mois ñu commencé ñëw robe yoo xam ne ay xale mën nañ ko sol et donc ñu ngi leen ciy remercier bu baax ci ci loolu ñu def euh, di remercier suñu formatrice yi ñu ngi jàppale bu baax a baax parce que jàppee ñu rek ay ay élèves jàppee nañu comme seeni doom di ñu jàngal métier bi à cœur ouvert aussi di ñu jox ay conseils yu bari vu que dëkk bi léegi dafa metti ku nekk boo xëyee yaa ngi xool loo mën a di loo mën a dundalee sa njaboot ak yooyu noonu donc bu ñu la mayee formation boo xam ne fayoo ci dara dañ la ko may aussi di la jox paas ak tout bon baax na ci ñun daal ba instant bi ñu ngi jàpp confiance que ni incha allah ku ci nekk di si un an wala deux ans di nga mën a tijji sa atelier boobu la yàlla jàppalee bay créer sa propre entreprise. di ñaw say ñaw di jaay bon mu doon lu baax daal ñu ngi leen ci remercier bu baax di wax ne état moom mu def nii moom baax na trop vu que ñun ñu ngi fii di jàng mais am na ay yeneen xale yoo xam ne ñu ngi ci biti ba amuñu lu ñu def ñoom tamit donc bu ñu leen si mën a jàppale ba bii bu jeexee mu amaat yeneen yoo xam ne ñoom dinañ mën a ñëw jàng am seen diplôme mu jariñ leen dara incha allah di wax ne ñi nekk ci saal bi di jàng bari nañ te ku nekk quartier bi jógee sax bokkul. di ko ku ne quartier na si Tëngéej yëpp ba hors Tëngéej am na ñuy ñëw di jàngi si donc loolu loolu euh, lu baax la si ñun ñu ngi leen ci remercier bu baax di leen jaajëfal di rafetlu nekkin bi ak suñu professeurs yi ak ñun entre élèves lépp daal ñu ngi ci jàmm ak salaam di remercier bu baax.